asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi yéen ñi safoo di ànd ak la TMS TV ñu ngi am mbégte ak kontante di ñëw ci seen édition spéciale ñu réservé ko ak bés bu mag bii ñu jëm du bésu umma islamique di bésu jullit yi ah li waa ji waxoon ne tous les regards sont tournés vers la ville sainte de Touba muy màggal di nuyu nag xalifa bu mag bi le PDG de la TMS TV Alaaji Thierno Moulay Sow mu wasaare ko ci njaboot gi waxtaan bi nag ma fas ci ànd ak Matar Diaw nekk ci kër gi bokk ci cellule de communication bu marabu bi mais surtout nag émission bi mënuñ ko def sans la présence de celui-là que le marabout a choisi pour diriger le desk religieux de la TMS TV je veux parler de oustas et souvent je l'appelle affectueusement imam Babacar Dieye Matar ñu am mbégte ak kontaante ci émission bi ñu réserve màggal gi nag war ko def deux parties et tout à l'heure en introduction naa ñëw ci ñaari partie première partie bi li ñu ciy waxtaane ak deuxième partie bi li ñu ci waxtaane nga nuyu ak téléspectateurs yi seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala mbokku jullit yi mbokku Sénégal waaye mbokki àdduna ñu ngi nuyu euh, àdduna bi yëpp vraiment parce que defe naa ne TMS TV àdduna yëpp a koy seetaan waaye di nuyu le PDG le maréchal El Hadj Thierno Moule Sow king of the king king of the king euh, le roi médecine traditionnelle du monde waaye di la nuyu doyen di nuyu Oustaz Babacar kër bi ñu bokkal plateau bi ci euh, xam-xam bu yaatu bi macha allah. waaye di nuyu suñu maan yi nga xam ne tubaar tubaarkàlla ñooy fexe ñuy feeñ te ñoom kenn du leen gis waaye di ñaanal ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpitaux yi sama borom suñu borom fëgg seen bopp ba ñu dellu seen njaboot waaye di ñaanal ñi nga xam ne caabi da leen féete ginnaaw aussi yàlla delloo leen ci seenu njaboot euh, doyen di la jaajëfal bu baax a baax a baax ci initiative bi ak émission bi vraiment. oustaz mais oustaz nag oustaz fi nga génti dafa garaaw de. Ah, xam nga yow da nga bëgg mën sañse xam sañse mais tey moom fii nga génn moom ah da nga ko gën a nooyal nga nuyu ak téléspectateurs yi waaw ah, salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu doyen Abdoul maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la ndokkeel di la ñaanal yàlla jàmm ak sutura fan bu gudd bu ànd ak wér yàlla defal la ko barke yonent bi alayhi salaatu wa salaam di nuyu Makhtar Diaw sama waaye sama xarit Makhtar daanaan di ko ziara bu baax moom itam tabaarakallahu di ko di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ak sutura waaye nuyu kilifa diine yi jël nuyoo bi teg ko ci la xalif général alaaj Thierno Moule Sow di ko ñaanal yàlla guddal fanam yàlla wéral ko nuyu ko ziar ko nuyu njabootam yëpp waaye ñun doo ndokkeel ñëpp ci weeru safar wii nga xam ni li ci xew bari na. jërëjëf oustaz je le disais tout ko doon wax en introduction may leen tous les regards sont tournés vers la ville sainte de Touba lu tax ndax bés bu mag biñ jëm di bésu delloo njukkal. muy màggal gi ah mais bala ñoo ñëw ci dayo bés bi solos bés bi dañuy ñëw d'abord ci jaami yàlla yi jullit yi nga xam ne nii fas yéene noo dem màggal ñoo xam nag fu ñu jógee parce que nag ñii danañ jógee diaspora àddina bi yëpp ñi jógee Sénégal ñi jógee Afrique ñi jógee fu nekk ah, mais oustaz ñu constaté ne léeg-léeg bés bu mel ni nga xam ne bésu jaamu yàlla la surtout nag ñu ngi adressé wu au chauffeur ñi nga xam ne ñoo daamaar yi di yóbbu nit ñi léeg dañ ciy def naka sudul noonu defe naa ne gis nga ba tey ñu naan paas yi yokku na ah jéggi na dayoo yu demee noonu ci loo xam ne ni war nañu yombal nit ñi seen dem ak seen dikk tey d'abord mooy doon première partie bi oustaz loo ci wax waaw loolu li ma ciy wax mooy ñu xam ni ci weeru jaamu yàlla la ñu nekk ndax weeru safar ku ko xam di nga xam ne weeru sacré la te itam weeru jaamu yàlla la ndax yu baree baree bare xew na ci màggal gi ñuy wax tabaarakallaahu di màggal tuuba ci weeru safar la sabab bi amee sababu li waral màggal gi ci weeru safar la amee euh, cheikh seyd ahmed tidiane chérif maqaama bu mag bi nga xam ni mooy maqaama katmiya yàlla ngi ko ko ràng ci weeru safar rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam feebar bi nga xam ni moo ko yóbbu barzaq yàlla ngi ko ko daaneele ci weeru safar ba mu amee ñaari fan mu dugg weeru gàmm am fukki fan ak ñaar comme ni mu ci juddoo woon mu soog a génn àdduna ndax feebar bi fukki fan ak ñeent la diire mais ñaari fan yi mujj ci weeru safar la daanu feebar dugg weeru gàmm dund fukki fan ak ñaar muy fukki fan ak ñeent kon safar weer la woo xam ni weer wu sacré la weer wu am doole la di weer woo xam ne weeru profité la ci wàllu jaamu yàlla waaye kon bu ñu demee ba Sénégal bés bu tol ni am fi muy màggal gi di bésub sant yàlla cheikhul xadim radiallahu anhu waxoon ni képp koo xam ni sama mbég la sama mbég sa mbég la bu bis bi ñëwetee nag ma sant la yàlla ndax la nga xam ni moom la liggéey woon ba am ko ak yool bu mag ba nga xam ni moom la ca am képp koo xam ni yàlla dogal na nga feeñ ci màggal gi jëf ci yool boobu du la moy dafay law téq la du bis boo xam ne nag bisu profito la ci poosu nit ñi déedéet am na chauffeur yoo xam ne tey euh, événement en général événement la ñuy bañ moo xam korite la màggal la gàmmu la maanaam événement boo xam ne nit ñi soxla nañu Sénégal dañoo am habitude boobu te habitude boobu fitna yooyu ñuy teg doomu aadama yi loolu mooy bokk na ci liy delloo réew ginnaaw ay doomi aadama yu dëkke réew nga leen di fitnaal di leen xëllamtoo sa sa sa sa li nga am wala di leen xëllamtoo sa li nga mën parce que am na ñu baax ñoo xam ni ay oto la ñuy lu mu laaj ñu fay ko gaare ko ay nit dugg ci du ñu fay dërëm dugg ci dugg ci dugg ci dem Touba. wala ñu dugg ci dem dem dem feneen fu nu bëgg a dem ci ci jamonoy événement kon foofu doyen li ma ciy wax mooy chauffeur yi bu fekkee ni dañuy yokk paas bi dañuy yokk paas bi parce que seen consommation la ñu daan consommer la ñu daan consommer ci gasoil dafay ëpp tey li nga xam ni moom lañ daan consommer li ñuy consommer tey bu ñuy dem Touba day ëpp li ñu daan consommer bu ñu daan dem Touba ndax circulation beeg mel noonu bu boobaa nag l'islam daf leen di may ñu ñu ñu ñu nattale bu bu boobaa nattale mooy maanaam euh, dama daan dem Touba di consommer euh, cinq litres gasoil léegi màggal gi ak circulation beeg yooyu xaw ma ba xam circulation dina consommer même déet mais màggal gi ak circulation beeg yooyu euh, tey damay con damay consommer sept litres damay consommer sept litres mën nga dangay ngay mën nga yokk li nga xam ne moom ngay fayeeku parce que yokk nga li nga xam ne moom ngay consommer mais nag euh, l'islam dafa tere tey par exemple Touba mille francs la màggal ñëw nga def ko mille loolu dafa xaram l'islam dafa tere lool maanaam doublé maanaam le double le double nga teg ko nga duble tarif bi loolu l'islam daf koo tere dafa xaram képp koo xam ni fayeeku nga nit ci genre fayeeku yooyu na la wóor ne bu yawmal xiyaamee dinañ dind ci say tuyaaba ya nga am delloo ko ko muy weccitam bu fekkee ni amoo tuyaaba yuñ ko jox dinañ jël ci ay bakaaram jox la muy weccitam wi nga xam ne moom nga ko waroon a delloo parce que moom amul pexe cheikhul xaddim woote na màggal gi wala sëñ fàllu woote na màggal gi moom faaw mu dem màggali kon loo ko teg mu tegoo ko waaye loo ko teg na nga sédd ëllëg yowmal xiyaam xam ne di ko ko fay ah, euh, Matar dama lay interpeller yow d'abord. Uh-huh. parce que nag dañ naan euh, les chauffeurs son sont pointés du doigt. Mm-hmm. te da nga bokk ci askanu chauffeur. Mm-hmm. du dëgg tey oustaz nee na ah yokk bi daal maanaam dafa mel ni oustaz am na fu mu ko légaliser. Mm-hmm. légaliser bi mooy nee na compte tenu quand même man mun naa ci sax yokk maanaam circulation bu cher nga xam ne da ngay gën a consommer mën naa ci sax yokk nga dem ñëwaat vide pour ñëw jël si nit ñi. parce que ñaare boo demee da ñëw vide loolu yëpp peut-être ay prétexte la yoo xam ne ni chauffeur yi day tax ñu yokk ci paas yi mais est-ce que tey li oustaz wax dem ba du simple au double ñu ne Touba fii ak Touba je donne un exemple bu doon 5000 francs nga ne par la faute 10 000 francs rek d'une manière aveuglée moom lay ko tey yow mi nga xam ne nii chauffeur la tey te nga dund loolu yàgg dem Touba tey loolu ñu ci mën a wax ci paas yooyu ñu yokk. waaw doyen loolu moom dafa nekk lu doy loo xam ne chauffeur saa ngi def waaye rafetlu ma ko. ndax même bu dee da ngay dem euh, Touba di tourné waat te doo yab dara taxul ne nga jël paas bi parce que daaw am na ñu fay dix mille. dix mille franc Cheikh ale kese dix mille franc am na ñuy fayeeku sept mille franc am na ñuy fayeeku huit mille franc am na ñuy fayeeku six mille franc. mais en temps de paix paas bi ñaata la. paas Touba deux mille cinq cent trois mille la. temps normal maanaam trois attends parce que li nga am na solo trop. waaw da ngay leeral ci oto bu ndaw wala oto bu mag. bu fekk waaw bu dee Thiès 1000 francs ngay fay bu dee bus yi 2000 ngay fay bu dara xewul. waaw mille francs ñu yóbbu la Touba. waaw 1500 sax dañu lay yóbbu. 1500 sax dañu lay yóbbu. waaw mais léegi bu événement amee dañuy yokk paas comme lu mel ni màggal Touba. mais tarif normal ci bus. Dakar Touba ñaata la. 2000 francs la. ñeenti téeméer loolu leer na. 2000 francs 2500. waaw waaw parce que léeg-léeg client day am léeg-léeg client du am. kon kañ ki laaj 4000 francs war na mun a laaj 4000 francs bu laajee 4000 même bu ñëw fii sax màggal Tuuba waaw mais dem ba 4 dañuy dem dem ba màggal gi toll foo xam ne 10 000 te oto yi dañ koy njëkkante am na femmes yoo xam ne du ñu mën a yéeg. des fois da ngay def yow miy góor boo ànd ak sa njaboot bu ñu teelul dem da ngay am problème parce que paas yi dina seer. non seulement dina métti ci ñoom parce que embouteillage bi day métti dëgg la. mais pour ñu am place bu ñu toog rek problème la. gisu oto sax jafe na. jafe na léegi yow mii góor yow yaay daw yéeg ak saak. jàppal jàppal place sa mbokk sa njaboot. waaw ba toog ba oto bi fees ba ñëpp toog nga ne kenn xoolal ma ma dem ñëw te léeg-léeg sa place bi ngay jàpp boo xamee bala ngaa wàcc nga ci xeex parce que dina am koo xam ne danaan la doo fi jàpp place fekk maa ngi taxaw. te tamit su boobaa tamit day daal doon yoon xam nga mu nekk loo xam ne lu metti la askan waa ngi koy dund ay at yu baree bari mais loolu tamit li ko indi mooy bu màggal Touba jotee garage yi presque kenn dootu fa dem. xam nga dañuy ñëw rek taxaw ci kaw bi la ñuy taxaw xaar oto yi fi ñuy fekk. amatul rang rang bi dagg na. Hmm. façon oto bu nekkay dem oto yu baax oto bu bon. Hmm. nga ci gis oto boo xamante ni nii. bañ ko gaaree yàgg na amul sax visite waaye bu màggal ñëwee rek ñu yëkkati ko ñu génne ko loolu tamit euh, dañ ciy interpellé way takk der yi. Hmm. ñu taxaw ci seetlu bu baax. amul Touba amul dara. Mhm. parce que oto dafa war a nekk ci état bu baax. Mhm. pour mën a yàpp ay nit surtout daw oto transport boo xamante ne day yab plus de quarante cinq personnes wala soixante personnes nga yàpp ko ci oto boo xam ne frein ya neexul. da ngaa xaar màggal gi jot rek nga ñam ñabal defar bi dugg ci wala nga defar oto boo xam ne day chauffé maara day taali mu tàkk ci kaw nit ñi sonal ñëpp nañu saytu yooyu yooyu nañ ko xool bu baax paas yi tamit ñu xool ne ki nga xam ne moo waral tey jii bis boobu di màggal Touba tey jii moom santaanewul loolu te ñoom it nañu jàpp ne jàppuñu ci bis bi parce que bu ñu xalaatoon ne ñoom war nañoo mën a liggéey lu tolloog at màggal ba màggal dellu si nga ñëw ne man kat def naa paas yi 2000 francs ngir jàppale ko sëriñ bi su boobaa dañuy xam ne yow mi kat jëf nga ngir sëriñ bi waaye sëriñ bi sëriñ bi sëriñ bi te bu màggal jotee yow yàkkamtiwoo lu dul lang cay am. Mm. te léeg-léeg am na ci ñoo xam ne sax du ñu nekk ñaari chauffeur benn chauffeur lay doon. nga bëgg a toog semaine yàlla di ko daw doo dallu mooy waral yenn jéey yi ngay gis yëpp loolu moo koy indi parce que am na ci ñoo xamante ne duñu ñu noppalu dañuy bëgg a dem Touba léegi ñëwaat léegi noonu lañ koy jàppoo deux trois jours yoo xam ne duñu nelaw man am na année boo xam ne nii maa ngi fàttaliku dugg naa ci benn oto boo xam ne chauffeur bi da doon dawal di nelaw da doon dawal di nelaw ba dafa mujjee wàcc emprunté bi nga xam ne amul permis amul dara moo mujjee yóbbu oto bi mais moom dafa mujjee ñëw toog ci ginnaaw di nelaw. apprenti bi moo mujjee dawal oto bi ba Touba yàlla xam na ko parce que da doon nelaw di wàcc tali bi su wàccee nit ñi yuuxu mu delluwaat parce que tamit xam nga am na chauffeur yu mag yoo xam dañuy am réflexe même ñu dee nelaw sax bu buñ ko yëgee rek dañuy daal di mën a euh, organiser waat mais Matar foofu moom foofu moom d'accord Matar non si nelaw moom Matar nelaw non <laughs> nelaw moom du ñu nelaw nelaw xolal du ah. ñu nelaw nelaw yu foor dañuy for bët mais loolu day am xam nga yaa ma gën a xam parce que chauffeur nga. Hmm. chauffeur professionnel hmm. Hmm. mais forbët boobu. yow xam nga oto ak vitesse am. en une fraction de seconde. jéye mun na ci am. waaw mais dañuy jayaxu xam nga dajantu du ñu nelaw mais dañuy dajantu. mais xam nga léeg-léeg mun nga xool. fekk yow sa xel a ngi nelaw mataar. waaw loolu la nag. loolu laa lay wax est ce que daal li gën a wóor mooy. ma ne la def na ko ñaari yoon yoo xam ne boo sentir ne yaa ngi gëmëntu rek nga wàcc oto wala nga droit mais duñ ko def nag dañuy jaayanteeg nelaw yi di ko moom léeg ñu daw ba mu yàgg wàcc daal di naan kafe sëlmu mhm. booba ña ngay nelaw saa yoo gisee chauffeur bu dawal ba mu yàgg mu wàcc oto bi sëlmu naan kafe bu dee day day day day day def loolu ñuy wax euh, muqi muqi yéegaat xamal ne daa gëmëntu loolu chauffeur boo gis mu def ko bàyyi ko xel xamal ne buñ nee nii rek mu nelaw mhm. léegi nag pour dàq nelaw yi noonu lay def day daal di sëlmu wàcc naan kafe daal di yéegaat toog <laughs> mais kooku ñaari yoon def na ko. joxal ma joxal oustaz waaw. oustaz Matar ne na dàq nelaw. dàq nelaw day man man doyuma xam nga lan moo ma doy. mooy dem nelaw yi muy benn. beneen bi mooy Matar wax na ko lu am solo dama ci naroon ñëw mu anticiper ci question boobu mooy njëkkante bi. lu leen neex lañuy dawal excès de vitesse parce que bëgg ngaa dem sotti ñooñu ñëwaat. demaat ñëwaat confirmer loolu ñu dem ba fàtte sax ne maanaam mel ni kuy lekkee ñaari loxo rek. boo moytul di nga fot oustaz. chauffeur yi nga am loo ci sànni. mooy gis nga ko nit boo gëmmentoo da ngay tëdd nelaw parce que nit mënoo fexe fexe fexe ba bu nelaw ñëwee doo nelaw mënul ne. wa jaal naa nawmakum subaatan la yàlla wax yàlla nee na boo leen sonnee man yàlla maa leen di roof nelaw ngir mu doon seen noflaay parce que doomu aadama fu mu tool rek dafa am loo xam ne mooy yàlla ca moom te loole yàlla ca moom ca jamono boobu mu toolee yàlla da koy roof munu ci dara bu la yàlla yàlla nag ay mbiram booy xëccook moom booy xëccoonte ak yàlla maanaam euh, lay tooy ca yow ca ca ca yow voilà ca yow lay jóge ndax bari na ñoo xam ne tey euh, dañuy sonn yàlla ni wa jaal naa kom subaatan jël naa seen jël naa nelaw def ko muy noflaay roof la nelaw au nga gaare gaare bu jekk nelaw ba yàlla may la jàmm nga jóg mais doo ko def da ngay xëccoonte ak nelaw yi loolu ngay wax naan dans euh, ci fraction de seconde rek jéyee mën naa am parce que nelaw buy ñëw doomu aadama du xam fu mu jógee nelaw day ñëw rek këf la dafa gaaw affaire bu gaaw la day ñëw rek këf la comme comme comme nit ni muy ni ñuy jékki-jékki rek rocc ruuxam nelaw aussi noonu ruuxaaniya bu bu doomu aadama buy nelaw dañuy jékki-jékki rek ni ko ni ko sempit rek mu départ loolu day am kon ku ku chauffeur yi nani nani nani maanaam tiit gi nu nekk nan ñu ci bari nan ko bàyyi daal nan ko bàyyi nanu dal bu dee benn chauffeur nga wutal ñaari chauffeur yow àndal bu dee yow bëggoo oto bi fay bu dee yow da ngaa bëgg màggal gi bu jàllee incha allah nga panne moteur dem wuti dem wuti di tañ-tañ fu ne nga dugg ba pour am moteur ngir màggal gi képp képp képp képp képp doo noppalu ngir paas yi yokk nañ ko doomu aadama yaa ngi njëkkante te yow yaa daan taxaw ku ñëw nga kar ko foo jëm nangam nangam di ko xëcc tey nit ñi di ñëw nga yokk paas bi ba mu kawee daal di def nii parce que xam nga ni nit ñi bu dee dix mille franc nga laaj bu dee benn dix mille franc lañu yor dinañ ko passé dem Touba bu nuy ñëw ñu ñu xool neneen nu ñu def yaa ngi dégg euh, li bi ci bi ci des aussi bi ci des aussi njëkkante bi gis nga nit kéwél xam nga kewel li muy gaaw euh, euh, li muy gaaw gaaw gaaw mënta jël wërsëgu kàkkatar kéwél gis nga ne mu gaawe mais kéwél mënta jël wërsëgu kàkkatar bërki démb rek maa ngi koy wax arab yi dañuy wax ni laa taajalan fa laysa risqu fi ajali nee na bul yàkkamti parce que wërsëg nekkul ci yàkkamti gis nga nit ki li mu war a am ci loxo yàlla la nekk te saa yu soobee yàlla la saa yu neexee yàlla la la ko yàlla jox gis nga bu fekkee ni bu fekkee ni di di maanaam la nga war a am tey yàlla dafa dogal ni tey euh, transport bi tey benn cent mille franc nga ci war a récolter yow nga programmé cinq cent mille cent mille franc yooyu boo ko récolté xam nga nu yàlla def dalay paanal moteur maanaam da ngay départ war dem oto ba sauvé joint de classe ba lakk wala moteur ba kuule da ngay gaare force cent mille franc yooyu doo ko romb or que da ngay wut loo teg ci cent mille franc yooyu sax pour defar oto bi parce que da ngay njëkkante ak sa borom parce que da ngay njëkkante ak sa wërsëg gis nga nit ñi nanu nit ñi nanu nanu dal nanu dal fa anzalallahu sakinatahu ala almuminin gis nga nit ñi nanu nan nañu am dal xam ni mbir yi ci loxo sunu borom lan nekk chauffeur yi nan bu nelaw jotee nanu nelaw yaa ngi dégg chauffeur yi bu nelaw jotee nañu nelaw nanu war a nelawee oto yi bu leen di dawal ñu dawal leen comme ni ñu leen war a dawalee parce que njëkkante bi amul benn jëriñ da gis koo xam ne tey daanaka euh, maara detaali yàlla mooy rey mais dañ ni dañ ni dañ ndogalu yàlla boo gis loxowaay nga ci biir ndogalu yàlla boo gis am na loxowaay bu nekk ci biir te li yàlla wax ni wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahiman bu leen rey seen bopp parce que man yàlla dama leen a yërëm am na ñoo xam du ñu yem ci rey seen bopp mais dañuy rey seen bopp reyaale ay nit yoo xam ni seen dee jotogul te loo yooyu rek la maanaam njëkkante njëkkante xëpp xelu xëpp xelu ku yar yab ay nit ay xar sax boo ko yabee war ngaa xam ne ay bakken nga yab nga bañ a utiliser baat bi ni wax xëpp xelu maanaam jugee Dakar fararararaw daw xëpp gars yi Touba départ demaat Dakar maanaam xëpp xëpp xelu xëpp xelu la ñuy def te loolu te loolu te loolu te loolu te loolu tegewul fenn loolu tegewul fenn loolu ku ci sànq bakkanu jàmbur ku ci sànq bakkanu jàmbur bu ëllëgee dinañ la aate te buñ lay aate aate ku rey nit lañ lay aate parce que yaa ko tey parce que loolu yow yaa ko tey Matar wax na ko am na oto yoo xam ni yàlla xam na ni mënuñoo dem mais bu màggal gi ñëwee ñu ñam-ñabal ñab-ñabal ñab-ñabal ñab-ñabal nga dem ba kii jub benn kii war a na làmb doo fa fekk dara fekk dafa baaxul woon da nga koo forcé ci màggal gi boo làmbee fekkoo fa dara na nga dugg ci ab taatu camion maara day taali wala yu mel noonu lor sa bopp lor ñi nga xam ni ay ay ay jàmbur lañu loolu loolu doyen nan ko nan ko bàyyi xel xam ni njëkkante bi jaru ko kenn ku nekk sa wërsëg kenn ku nekk sa wërsëg di nga ko jot boo fexee nag ba yàlla sa wërsëg sa wërsëg bi nga dese ci àdduna benn mille la nga fexe fexe fexe ba lijjanti mille yooyu ci màggal gi incha allah màggal ba ci suba ga da ngay dee parce que sa wërsëg jeex na. ku sa wërsëg jeex da ngay dee de bu yeboo nit ñi dal. dëgg la oustaz euh, donc euh, pour ñu fermer ce premier volet. Hmm. exclusivement réservé. Hmm. au transport pour les pèlerins qui doivent se rendre à Touba avec les tracasseries. Hmm. Matar nga tëj volet boobu lan ngay ban appel ngay lancer sa mbokk chauffeur yi. Euh, appel bi ma leen di lancer mooy. Hmm. nañu xam ne rek àdduna kenn mënu koo jeexal ci benn fan. te defe naa ne mos mosaata gën mos benn yoon comme ni ko oustaz waxee. Hmm. ku ci profité sa wërsëg rek. tubaarkàlla miir miir miir ba nga jëm. maanaam armeel ya nga jëm. Hmm. ndax wërsëg euh, dañ ne kenn du ko dogandu. soo ko gàttandoo mbaa nga daw ak ko boo moytuwul day dëpp. da taxaw xaar ko bu ñëwee toog kon nañ góorlu te xam ne ku ci nekk sa wërsëg di nga ko jot mm-hmm. ñu def ndànk daw ndànk dal ndànk te ba pare yàpp ci oto yi lu ñu àttan parce que oto boo xam ne dix tonnes lay jël par exemple laay wax oto boo xam ne dix tonnes lay jël nga yeg nga yàpp ci soixante tonnes yàpp ca kaw ba mu fees yàpp ci suuf ba mu fees oto boobu boo muy tuulee fa nga jëm doo fa yegg mm-hmm. oto dafa am loo xamante ne moom lay laaj muy nombre Versailles yi sax léegi lañ ko xewal mais du yoon oto dafa war a yeb nombre. bu muy wàcc prévoir ñu Versailles dafa war a am voilà oto bi dafa war a am empreinte bi dafa war a am place bu muy toog mais dañuy joxe lépp ba defar ban tablier teg ci biir. ah si chargé ko nga gis koo xam ne yor na yor na fukki saaku ceeb yor fukki saaki pombiteer fukki saaki soble nga yeb ko ca kaw ba daanaka kaw gee gën a diis suuf si mais oto bi dootul am assise saa yoo dawee lu romb cent vingt wala cent quarante da ngay daanu mënoo ci dara parce que tali yi baaxul dafa gondalewu tali yi lu ci ëpp dafa gondalewu booy daw oto bi day def ay rebond donc ak nawet bi des fois tali bi tooy nga feree ne fii dem taxawi fële mhm. parce que pneu yi nga yor dafa usé yàgg na un an ngi nii changé woo ko te tamit nañu dem changé seen pneu yi pneu oto boo xam ne koy dawal un an deux ans doo ko changé en tant que gisoo ne dafa bënn meesee nga ko ñaari yoon doo changé pneu mhm. loolu tamit nañ ci bàyyi xel nañ dem jënd ji ay pneu yu baax monté ko xool seen boulon yu yolom yi ñu seere ko ba mu dëgër këng bu fekkee dafa am ay boulon yu yàqu yu usé tamit ñu dindi ko changé ko seere oto bi ba mu ne kekk xool taatu oto bi lu muy wax ah ñi am problème train euh, train arrière ñu defar ko ñi am problème mu cardan ñu defar ko ñi am problème mu caramayer bu ñu ko sooxaale parce que oto dafa garaaw voilà lamp yi lamp yi tamit ñu monter ay lamp yu leer nañ defar tamit li nga xamante ne mooy seen anti parce que jamonoy nawet lañ nekk mhm. mën nga ne bërët jóg guddi muy taw boo amul anti brouillard sa lamp yi day mel na essuie-glace yi di fonctionner waaw di defar oto bi ba mu ne coog normal nga doog ko yóbbu Touba bu normal wu nga gaare ko fii xam ne loolu la yàlla dogal loolu daal laay laay laay donc defe naa ne appel bi leer na euh, pour le capital d'expérience qu'il vient de nu servir par rapport au comportement euh, des chauffeurs euh, pour le bien des usagers ñuy ñaanal yàlla nit ñi dem ci jàmm ñibbi ci jàmm donc loolu mooy la première partie bu ñu bu ñu bu ñu leen doon proposer sur la TMS léegi nag ñu delsi ci plateau bi pour la deuxième partie nga xam ne nii dañuy waxtaanee ak nag màggal gi nga xam ne nii. oustaz dina ci yow léegi ak euh, ki nga xam ne moom mooy Matar à tout à l'heure sur la TMS TV